waa ay retraité VIP lañ te ak ñu inteloo nag noonu la ndeysaan maa leen di yaas nuyu nañ ñëpp de ak waa tali bi ñu ne ci marché yi nuyu lébu yi ñu ne ci ndox mi balaa <laughs> ñu eh, ñëw jubbanteeti monsieur le maire de la ville de li ma ci mitti rek mooy xoolal tuubu na rek dem na Benno Bokk Yaakaar te maa ngi moom 2012 ba léegi ñoo fi nekkoon di xeex xamoon naa dina te opposition dafa métti. te ndeysaan waa mais Ahmed opposition lu ñuy def nag. dafa ah? lu ñuy def. Mm. am s'il te plaît jox ko. na publicité wala na yàgg na. man ma xaalal la yoon wi. pouvoir day caaxaan xoolal moor <laughs> ko. voilà indi journal la xam nga moor bi ma koy xam ak lii mais yàlla nag mooy dogal aussi. Mm-hmm. nguur du caaxaan. Mm-hmm. oui nous félicitons et nous remercions toute la presse nationale et internationale. Mm-hmm. d'être présente aujourd'hui ici euh, à notre point de presse pour parler quand même des futurs élus. Notre leader, le président Macky Sall, un Africain, un visionnaire. Euh, et nous dénonçons. xoolal eh? voilà voilà voilà vous distribuez avant notre lecture notre euh, mémorandum la déclaration de Benno Bokk Yaakaar way Abdou nga gis Seydou Gueye naa ni xoolal Seydou Gueye ni mu daan prononcé ak léegi sa bokkul way Abdou vous faites passer voilà voilà way vous donne copie way Mamadou bonjour ah Madiambal vous êtes là voilà on voit qu'aujourd'hui ce sont les ténors de la presse qui sont dingal mbagg opposition ñu def naan MD doo jël yaas way wax ji mooy njëkk a bëri ànd ak coono doole ci ëpp opposition yàlla nu ci yàlla musal way merci de votre présence le professeur Malick Ndiaye d'abord ou bien oui Malick way Daouda dañuy tourner sax di woon caméra yi ndoom te duñ ko day way l'acte posé par le parti au parce que Macky Sall un il a dit xam nga tonton tapé la même ñu tapé lettres du leer ndax. gars yi di après ngeen photocopier. encre dul mat photocopie nit opposition oui. La salle d'aujourd'hui est soude là. Oui, parce que l'article L32 du code électoral, vous avez vu, c'est que le président Macky Sall avait fait à Karim et à Khalifa inadmissible. jubbanti kool te day bëri ñu tardé ndax amuñu carburant taxi la ñuy jël. oui. fais le passé oui s'il vous plaît oui oui. journaliste yi xoolal yi tardé donc ça yàlla nañu yàlla ci opposition. opposition waaye métti na opposition yaa dafa métti de. trop. El <laughs> Hadj Malick Guèye nee na opposition dafa métti dafa métti <laughs> opposition <laughs> opposition yes. ñu ne. tribune yéen a kaay ñëw ak ñun ci. dégg nga yaa tribune yéen a kaay ñëw bi tribune yéen bi naa leen weekend bi metti na torop torop torop torop benn xale bu jigéen boo xam ne dañ koo rey te amul lu dul ñeenti at ca puut beneen xale bu góor ñetti at boo xam ne nag maanaam safar ba ca boppam moo doon manipuler balu fetal ba fa mbir ma dal waaye tur bi nee na nga xoolal yaas sali day dégli wàññeeku na jànk ji nga xam ne maar day taali dañu jaay seen bopp yooyu daal wàññi nañ dégli avant nee nañu weeru koor gi ci boppam kon di dikk moom mooy lii 3000 la woon de léegi 1500 la la ilaha illallah wal fajri gis nga xam nga wal fi lii lay jot moom non seulement duy ñëw moom yoo ba bësee mu bañ wal fajri ñëw ak ñun ci lañu ñu xuloo woon njortees nañ ne déggoo dana kal mooy la date des locales nee na ils s'accordent sur leur désaccord cay yàlla mooy neex na xalifa moom fa mu nekkoon dugg fa ci calendrier euh, euh, euh, électoral bi date bi nag élection yi foofu suba ci talaata ji daañu ko xam dégg nga loolu bokk su populi ñëw ak ñun ci Moustapha Niasse ngi nii gars yi daal waa Benno Bokk Yaakaar ña nga woon Grand Théâtre ñoom daal ràcc nañ jëmale seen kanam mu dëll mais déglul Moustapha li mu wax moo garaaw il faut lii liir entre les lignes mm-hmm. Moustapha nee na moom waxatul ay affaire locale de waaye yële di ñëw yooyu nag xaw ma yan la lam ca bëgg daal mooy ay adversaire u Macky gars yi duma leen ci 72 pour cent waa après local yi luy ñëw. oui législative xanaa ak présidentiel <laughs> troisième mandat dañ ko fi tere laay ñas duñ la ko may ci àddina kooku mënul ne Macky jeexal na na dem sut ko Quotidien ñëw ak ñun ci xaaf nag barki démb nag waree na boppam lu jëm ci wàllum xeex élection locale yi di ñëw ak dundu askan wi nee na le pays non seulement il est en danger mais le pays va mal Sénégal tant pis Sénégal may Khalifa nee na kenn ñemewu fee toog naan mbir mi lépp a dox mais sénégalais yi sonn nañ génn xeetu sonn goo xam ne foofu maara de taali xaa fa ko wax de Vénus Dieng maa ngi lay ak Awa Ndiaye source a ñëw a ngin ci Alioune Ndoye moom waaw da ngeen te du yéen ngi nii du tudd KFC euh, euh. ndax ñoo leen di bëgg jox leen ay ganaar hmm. dëgg loolu dëgg waaw ñi nit ñi bëggal ci rajo bi laay tudd noonu mu ñëwee ci télé moom lu ma neex laay def dégg Alioune Ndoye ñi ñii di dagg ay bopp nag la sabab lu ni mel mooy ñàkk a respecté ay délai infrastructure yoo xam ne dañ koo defar ñu waroon koo joxee te joxe wuñ ko dégg nga loolu <laughs> yaa ngi dégg loolu voilà le soleil yéen kaay ñëw commune Sénégal yi 35 milliards pour defalaat hôtel de ville yeeg ñoom seen ak Samb Koro Ndiaye ginaar ak i nenam yéen dem leen <laughs> yéen ngeen dem leen ñi ñëw defar lii. waa ñii duñ dem maire yi duñ dem. dañ koy defar pour ñi di ñëw. waaw waaw waaw waaw baax na ba léegi amul problème eh bàjjo bi de aji saara gi nii yaas. bàjjo bi ñëwaat na. <clears throat> aji aji soloon keroog voile la wala lan la. taxi bi zone noire bi. voile la te dafa ah, bi la zone noire. <laughs> ku ñëw yéeg dem aji dafa ñu génnee benn série dippee ko cey aji <laughs> cey aji Sarr waaw ban daw sax. ah du fi. Ah, <laughs> bu dee la dana leen yóbbu ci plainte bi de. aji daal ak avocat bi mais El Hadj Moussa dem tribunal ñoom dañuy plainte parce que xale ba ñu jër pour mu jouer actrice principale ba ñu tuddee ko aji Sarr rôle mbaa de waar. Hmm. tey bàjjo bi lii la mer moo demee rek El Hadj ne lii aji mi ngi koy dund instant bi ni deuxième bi yow tey bàjjo bi bàjjo bi aji yaa am way yow <laughs> yaay lay la laaw libération ñëw ak ñun ci xoola gone gi jaay dañ ne dañ ko rey journal bi ne déedéet. Hmm. dañ koo jël dugal ko ci foos. Hmm. ñaari fanu yàlla ñu koy wër ginnaaw ko rek la ñu ko gis. exclusive yéen a kaay ñëw ak ñun waaw kay bees maron yaa ngi nii day leen mobiliser rek Rufisque ba Ndar ku tudd Bamba Fall benn plan wu Mansour la. Omar Gueye ngi nii ca dëkkam Tëngéej ñoom ñëpp pooloo nañ nee nañoo ñoo def seen bu roog soow di Mor borom aseg naa ngi mi ngi nii moor a ngi mais yaakaar ñoom nee nañu yaas ñoom dañoo yàkkamti élection locale yi ñoom parce que ñoom nee nañu leer na leen ne dañuy gañe ah yàkkamte na ñoo jàkkaarloog opposition bii laalante ak ñoom mi ngi nii de ca jamono jooju xaaf dal na ci kaw gars yi ba mu neex gars yaa ngay meeting journal bi nañu Doudou Ka sëru cosaan li la laal sëru cosaan li sunu cosaanu Casamance bi moom la laal ci meeting am bi page mystique baa ngi Assome Diatta directeur de cabinet am la yónnee lu war a loolu ana fu mu demoon Angélique Manga Mamadou Diombera ñooñu moom jébbalu nañ ci Dudu Dudu ka évidence yéen a kaay ñëw ak ñun ci Dudu c'est Dudu how are you du how are you I'm fine dégg du doo ngi nii nee nañu nag réussir na le pari de la mobilisation kooku nag ñun demuñu woon Casamance ñoom ñoo ko wax enquête yéen i kaay ñëw ngeen ci xaaf Khalifa Sall dal na ci kaw gaa yi laa la wax te gaa yi lii xaaf yéex na koo wax Birahim Khalifa xam leen na ne xeex rek moo leen di may li ñu bëgg xeex comme que kii nekk fi moom xamul négociation xamul ay affaire ay njëkk teraanga xeex heure bi mu ko wax weesu na waa wala déet en tout cas daal xaaf daal ma nga ca lii la wax dégg nga foofa nag ñëwal fii l'histoire se répète yaas nag fii moom faut suivre parce que modèle bi bu la rëccee li des du baax non non doo doo am note bu baax parce que fii au minimum tu auras neuf mm-hmm. neuf sur dix ah Sur 10 ah. Non, non sur les 20. Ah. 9, 9, non, non, non, 9 points. qui devant bi yëpp journal bi kese. Hmm. c' est presque la moitié. c'est vrai ah voilà donc il faut suivre dégg <laughs> gis nga manifestation marché yi. xam nga lan lay saf. Hmm. xam nga lu muy saf. Hmm. day saf manifestation wu 23 juin ak 27 juin 2011 ci jamonoy Ablaye Wade déglu de. moom lay saf de journal bi nañu gis nga te ci temps yooyu temps Ablaye Wade un mois après les manifs de 23 juin ak 27 juin waa kër Ablaye Wade yi dañoo mobiliser waa def ay mobilisation cinq millions de partisans pour le Pape di Sopi nee nañoo pour tontu ña doon manifester pour leur montrer que ni la majorité la masse ñun lañ àndam. ñu mën ñoom ñoom tam ñu organiser. dégg nga ma de. Hmm. tëggal fi Abdoulaye Wade lu rëy. ba mujj gi Babacar Diagne naan wàdd caméra yi mënuñu filmer lépp. Hmm. il nous faut benn hélicoptère. mobiliser on dafa yomb. Hmm. koo jox tisi ak oto mu topp la ba mel ni tulleeg male mais tey xoolal ma tey événement yi daa jàll. demal Podor en Kaolack en passant par l'Arena Kolda Ziguinchor ñun ñi ñëpp manifestation fi mu nekk nii la gars yi jubte nee nañu pour. assurer seen leader Macky nekko ko yaa fi ne. dégg nga mm-hmm. ngi nii waaye nag catli catli mooy xam nga ban tontu la sénégalais di xaar ci Macky. dundu ñu askan bi condition de vie des sénégalais indi ci lu murite lu palpable loo xam ne dañ koy laal. dégg nga loolu mu ngi nii waaye diggante exécutif bi palais bi ak palais de justice bi loolu tam doy war. suñu justice bi mosuñu koo ŋàññi nii féex ngeen am ngeen indépendance waa wala déet ku ne Macky Sall nag nee na jeunesse bi li mu ko lancé keroog moom comprendre na loolu la wax de. Hmm. ba génnee ay financement ak mu ne. Hmm. mais dafa am lu mu ignoré. lana loo xam ne moom moom daal Macky loolu ump na ko. lana mooy attente sénégalais yi ne fii ci réew mi ak ci bitim hmm. te gis nga xam nga Diouf ak Ablaye bi Birahim lan moo leen fi jëlee cette majorité silencieuse. entre les électeurs mm-hmm. et les militants mm-hmm. il une grande différence l'océan Atlantique et eh, plus l'océan Pacifique wuy ma ak le Nil ak fleuve Casamance ak Gambie la Méditerranée <laughs> xam nga la mais gars yi loolu lañ jaawale soo meeting organisé adduna ñu ñëw nga ne Sénégal gi yëpp a ngeeg man fekk yàlla xam na ne ñiy voté ci six millions yi nekk ci biir fichier bi saa yi un million sax politique gu ñu. déggoo ma de Dakar Times si ñëw ak ñun ci xam nga Charles bi bu guddee. jeunesse ba ca Côte d'Ivoire jamonoy Gbagbo. Hmm. ak Gbagbo. Alassane Dramane Ouattara nee na leen ñibbi si leen. waaye yow est ce que nag Macky Sall dana defal loolu Karim man de man man man dossier Karim Yaas jaaxal na ma. APR boo toogal émission hmm. Seydou Gueye porte parole yéeg hmm. ñi ñu toogal yépp seen jotaay boo leen ko laajee dañ laa la Karim a fa bàyyi boppam waaw Karim mën naa bàyyi boppam bitim réew loolu moom doy na la différence mooy ñii dañ leen a àtte setal leen pour pénal international alors Karim il est toujours euh, amagul amnistie ñële moom setal nañ leen donc finalement pour ñu mën leen a amnistier seen seen seen dëkk. Mhm. moo gën a yomb ki nga ne dañ ko tuumaal mais am amnistier guñ ko. waaw atte ko ba pare di ko fayeeku ba léegi milliards yi nga xam ne mu ngi. waaw waaw mais li mu tëdd tëdd na ko Birahim. c'est ça mm. mais sauf que financièrement nee nañu ni. il reste devoir de l'argent à rembourser à l'État du Sénégal. loolu mm. donc je veux dire que si logique bi. Mm. différence bi entre waa Côte d'Ivoire. ak ñii loolu. non maintenant est-ce que Sénégal dinañ ko amnistie pour bàyyi ko. xaalis moo prétexte la rek parce que bon nguur gi bu bëggee bàyyi ko. Euh, amnistie ko mën na ko amnistie xaalis bi ñuy wax noonu. par rapport ak li ñu ko tuumaloon. c'est absolument rien. 117 milliards lañ koy fayee ñaata mille milliards la commencement ba kay commencement ba ca ay réew mi day nuru nuru lu luy dox. waaye bu kàkkataroon sax mu tane waaye dana dëj mi ngi nii l'immobilisme en action yow tu as l'impression que ni gars yi ñu ngi yëngu quoi pouvoir bi manifester les les les les les les les les emplois promis les nangam sangam dox ay yëngu yooyu xam wuy ma mu yëngu woon nii comme ni may def mbagee sax mu tane mais nii lañ def. daa kale tàkk mba. taxaw la ñu def taxaw taxaw mi ngi nii te gis nga moo tax. Alioune li mu wax nag loolu mooy dëgg nee na gis nga fay wante ay réponse politique yoo xam ne dañ ko teg ci wàllum revanche loolu ni muy delloo réew ginnaaw sax baax yow sa àddina yi ku àndul ak yow kàkk ku ànd ak yow nice foofu lii lan la xoolal kii Marie Sagna conférence de presse bi la ñuy daanele ay nervi nee na ñoo fa dugg saxat saxat